ginnaawam laalu suuf ca Abdourahmane Ndiaye Falang góor gi ba ca alaaji Taala Jaañ ba ci Mbay Gay Robert mbër ma su koo def kii moo daan góor ñi kii moo renversé tendance ba ca Niger ca digganteem ak Assane Adamu Assane Adamu di def cent yor saabur door góor ma su daan yaa ko fa fekk entraîneur bi daan ko deux fois aller dama ne ko ñoo moo nekk tous les de sa keroog nga doon roi des arènes dajeeg Mouhamed Ndao Tyson le 1 janvier daan ko jël boo xam ne ba tey réew maa ngi koy waxtaanee nga jógee fa dajewaat ak moom la 4 avril 2010 renversé waat ko. ngay ndaanaan boo xamante ne nii foo taxaw rek war nañ laa delloo njukkal dama ne c'est le meilleur lutteur de kii moo def les beaux jours de l'arène sénégalaise bindu l'une des plus belles pages de la lutte dama ne waxaat ko ci kaw kii moo dajeeg Bombardier en 2000 octobre 2000 nga renversé 28 mai ma ne bul taxawal bul ñëw bul dem non bul dem non bul dem bul dem 28 mars 2004 mu renversé Bombardier xoolal Momo le 2 janvier 2011 stade Demba Diop Gaston wa tëgg lamba lamba ji mu dox sa nga dajeeg moom mu dox sa nga suteeku mu yéeg sa nga daw dajeeg moom monte ko ci xabalu biir toog ci kawam dama ne a fañ na dem na kolum o oh, fañin fañin fañ fañ fañ cawa caca basal waay jërëjëf Momo Fallou lii def yàlla na la ko yàlla sunu borom fay xam nga man dama nekk ak Cheikh Fallou Luc Nicolas le promoteur du continent may coordonné Luc Nicolas Enco mais kii boo gisee ma ànd ak moom maa ko fekkee mu dajeeg ndaanaan yu baree baree bari kii moo dajeeg ñoom Malick Ngéeñeen moo dajeeg ñoom Yaamu Rofange dama ne la ko dake ca usu ndeb roog bu joof yor faa bi felir yàlla na ko yàlla yërëm ca Ousmane Sali bu semal Ousmane Ndiaye bu jurub ba fii ak si mbër mu mel nii masu fee am neexul ba neexul mais yaay góor waaw waaw ah champion eh momo Yaxya waay oh ah bilaay na jóg waay moo waay waaw waaw ah na jóg Fallou jërëjëf waay ñaanal ñu ministre des sports ñu changé turu aareen bii tudde mën na nekk. donc ma wax. Momo. Momo. ma ñëw. Momo. Momo ma ñëw. Momo. Euh, boo gisee tey nga ñëw fii am takkusaan ju mel nii parce que askanu séeréer bi nga bokk kenn merewu la tu es séeréer de l'histoire ca ma nga ca ñoom Antoine ca ñoom Robert ba ci ñoom ma nga numéro en un lutteur de la valeur de Yaxya Joob Yékini ma su am fii mooy capital bi fi la góor ñëpp daje fukki at juróom sa gannaaw laalu suuf neexul ba neexul yaay góor xamalu ma lay ñaan nga jóg rek comme Fallou dafa def lu rëy Fallou fépp fu góor di àgg yàlla na nga fa àgg parce que góor pire nga te lii nga def rafet na xamal lu tax yow dangay ngay nit ku dëggu di nit ku ñàkk caaxaan moo tax yow lii nga def yàlla na la yàlla delloo mbër rafet na nag mbër di ko def ndax toog der roi des arènes huit yoo xam ne yaa ràññee bëre nga ak say rak bëre nga say nawle bëre nga say mag bëre nga ak say ñëpp te nag boole ci nag def ko nag ci fair play donc ah def ko ci l'histoire du Sénégal ndax képp ku gagné yóbbu woo ko fenn fi nga koy yemale ci réew kon nag na rafet ñu bokk ndey bokk baay xam ne c'est la lutte c'est ça le sport waaw c'est ça le sport waaye gàcci ngalama Fallou Ndiaye jokka njal baax a baax de mbool mbool waaye jokkoo njal waa Siin waa Saalum ñu ngi bëgg ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw ginnaaw bu ma sante yàlla nag julli ci yonant bi dinaa sant nag sama sëriñ bu baax boobu mooy Cheikh Ndigal Sène bu Ismaïla Diouf Nouroula sama sang ba ca nja ba ca njàmbur jiit waa gis ngeen sa Yaxya Joob Yékini gis nga ser bi ñuy gog ñuy gàll ko Fallou Ndiaye ser bi seru jàmbaar la de ser bi seru garmi la de kuñ ko mu sawek ku ne ah, yaakaar naa ne de aar nañ la waaw kon Yaxya Joob Yékini kontaan na kontaan nañ Assane Ndiaye le promoteur Assane Ndiaye ñu ngi lay gis nañ sa taxawaay say biir rak say biir mbokk kon jokka jala baax Yaxya Joob Yékini c'est ça Sénégal nañ bokk ndey bokk baay rafet na xam nga ne Fallou Ndiaye mu def bés bii jël ko rek di jagre Yaxya Joob Yékini ànd ak ay mbokkam kon lii wax dëgg rafet na kon jokka jala baax a baax mbokk yi sant nañ yëpp question rek taf taf xam naa ne gars yi yàkkamti nañ bala ñoo yéeg rapidement. jaajëf jaajëf maa ngi leen di delloo ziar. tey tey moomoo may ñu moomoo may ñu tey mu mel ni bés bu mel nii ñu di la sargal Fallou Ndiaye def ko Yaxya lan la yëg. kontaan di nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm Fallou aw ma lan laay wax xaw ma it naka laa koy def. parce que bu ma xamoon baat ban laa war a wax pour remercier ko dinaa ko def mais malheureusement. Euh, xaw ma lan laa war a wax vraiment kontaan naa suma xol sedd na yàgg naa ci làmb yàgg nañ maa teral waaye bii day neex na ma lool. ki ko def di doomi Bawol dëkk Bawol yow ngay doomi Siin ak Saalum Fallou def lu mel ni tey mu mel ni kon sa xol moo fees mënoo wax mais yaakaar naa tamit Fallou boo ko gisee tey ci li simple bi ni mu ciy doxee mu mel ni yow it kon Fallou daa mel ni juumul de parce que gis nañ muy dundal li simple. waaw juumul boo gisee ma kontaan fàllu miinu ma ko lool xam naa ko en tant que promoteur euh, lim def daf ma bett. Souleymane Thiam boo tax ma ne la yàgg naa ci làmb am naa ci décoration bu ne mais bii daf ma neex parce que daf ma bett et diggante biñ ko xalaatee def ko gistu naa ci moom tuuti. am ci seede yu rafet maa ngi koy wax démb ak Max Mbergane xëy na tey duñ ko mun a wax mais bu luy paasee dinañu toog ma ak Fallou dina xam ne boole naa ko ci sumay nit parce que nag teraanga la bu ma ji te teraanga dañ koy delloo vraiment kontaan naa kontaan naa suñu foofu seer bi nga ko jox. seer bi waatoon naa ci yàlla ni après koor gi rek laay dem ci làmb yi moo tax lii mooy suma premier sortie ren moo tax kontaan naa daal ci tënk. Faata production si yaa ko jiitee muy structure buy tëgg ay làmb ñu gis la daaw nga def mbuur lu doy waar ma dégg na yaa ngi waaj ñaaxar loolu kañ la. ñu ngi def euh, six programmes après koor gi. ñaaxar la ñuy ubbee Joal maîtriser wu ma nag programme bi fi ma taxaw. mais ñaaxar la ñuy ubbee le quinze incha allah. seer bi nga jox Fall nu mu tudd pour lan la. waaw loolu Fall laa ci waxtaanal. <laughs>